asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ma leen nuyoo ziar leen maa ngi eh, nuyu rek eh, suñu kilifa diine yi jiital ci sëñ Mountakha Mbacké Bassir mu yàgg fi loolu te ànd ko wér eh, di nuyu bu baax a baax macha allah ñëpp ñi nga xam ne si jamono yi ñu ngi ci wàccaayu màggal bi ndax ñu ngi ci safar gi booba léegi waaye itam di nuyu mbokku internet yëpp rawatina ñi seetaan suñu site bi di Géewlu euh, Géewlu Art TV ñoo ngi leen nuyu fépp foo mën a nekk duñu seetaan euh, di leen ñaanal bu baax a baax màggalu jàmm noonu laa koy sàkkoo ci yéen saa su nekk tey nag euh, ñu daal di fas yéene teewaat fii noonu dañ ko daal di sante yàlla bu baax a baax comme ñu koy faral di defee saa su nekk ci suñu biir émission li ci kër gi tubaarkalla masala xam naa loolu ci kanam lay doon ginnaaw bu nu nuyoo ba noppi ah, ñu fas yéene ci ànd tey ah, ñu am ci invité bu mag macha allah koo xamante ne si ndaanaan la ci biir ndaanaan yi ah, muy soxna Fadiane Seck tubaarkàlla macha allah moom lañu fas yéene tey ànd waxtaan bi ak soxna Aram Seck bi nga xam si naka jekk moom ñoo daan ànd waxtaan bi di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan fépp waaye mën a nekk di nuyu di nuyu bu baax a baax soxna Aram. Ah, di nuyu bu baax baax ñëpp ñu xam si ñu ngi baye xel saa su nekk kon soxna aram damay daal di baye kaddu bi nga daal di nuyoo nuyu naa la soxna maam jaara maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu suñu mbokk internet yi nga xam ne si ñoom ñooy ànd ak ñun si émission bi ñi nga xam ne si moom mooy kër gi di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi nuyu kulukum koo xam ne rek da nga ñuy bàyyi xel fii ci site bi ñuy wax Gueoul Art TV tey nag comme soxna maam Diagne ni mu ko waxee dañoo am gan gu mag muy maman mhm. Faye sekk macha allah ñu miinoon ko ci lii bu baax a baax kon tey am nañ mbégte bu baax a baax toogaat ak moom fii. waaye noonu lañuy nuyoo rek képp koo xam ne sii tamit dangay partager di aimer ndax ñoom tamit ci lañ bokk soxna maam Diarra nuyoo bàyyi noonu. macha allah soxna Anam Seck nga nuyoo ne bu am solo di ci amaat mbégte contentement ci kàddu yi ma nuyoowee rafet na lool. ah tubaarkaala nu mu ko waxee rek ngeen di seetaan tey partage tey béggee loolu ci am solo bu baax baax yéen ñi nga xamante ne si euh, yéen ñuy wéttali macha allah ci seen bu mag bii di Gueoulart euh, TV dañuy daal jox soxna Fadiane Seck nga xam ne moo nekk suñu gan tey macha allah fas ànd ak waxtaan bi ci kër gi soxna Fadiane Seck ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum salaamaaleykum yéen waa sama ñi nga xam ni ñoo ma invité muy soxna maam jaara soxna aram mm-hmm. Seck jaara lay àlla maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa géewul géewul aar di leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu àlla di nuyu alfa ñëpp daal ñoo xam ne rek maa ko daan bokk ak ñoom rek maam Binta ñëpp ñi xam ne maa ko bokk ak ñoom fii ci aar géewul bi maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu nag rafet di rafet lu toogaay bi ko bu baax a baax a baax a baax di nuyu na kilifa diine yi nekk si ngumba géewul di nuyu sama papa maa ngi ziar sama papa Omar ba ba tey rek di ko jooy ba tey noppeegu ma. Mm-hmm. di ñaanal kilifa yi fi nekk. ci ngumba ak liko wër di ñaanal tamit señ muntaha mi nga xamni ni ak sunu señ señ mbay si mhm. ma ngi koy ñaanal bu baaxa baaxa baax ndax ñing ci préparé li maam jaara wax rek magal gi te buñu euh, magalé pare rek gam gi mo ci top di ziaré mhm. serif mhm. ay dara ñom sunu mbokk serif fi nek ñëpp ma ngi leen di ziaré bu baaxa baax di rafetlu bu baaxa baaxa baax baax a baax macha allah macha allah soxna Fadiane néew bi am na solo di amaan mbégte contentement ginnaaw bu ñu ñaanalee xalifa généraux yi sëñ Mountakha Mbacké Bachir ci màggal gi sëñ Baye Sy Mansour bu ñu jógee màggal dañu daal di wax ma gàmmu yàlla ñu yàlla may rek yu ñu yàlla ñu yàlla may ay xew ñu mën a dem si jàmm daal di ñibbi si waat ci jàmm incha allah euh, waaye itam rek bu leen fàtte ne yéen suñu biir émission tey li ci kër gi ñu ngi faral amee fii ci Géewul Art TV chaque 15 jours Euh, macha allah tey nag indi thème bu am solo macha allah thème boo xamante ne si yaataa yimbe na lool nag àdduna bi tubaarkàlla macha allah muy infidélité suñ ko waxee rek maanaam muy Euh, confiance maanaam jëkkër ak jabar waaye itam jabar ak jëkkër ndaxte bu ñu seetloo soxna Aram mhm. euh, góor ñi en général daal dañuy faral di bàyyi seen soxna di nekk ci maanaam daal di doxaan daal boo bëggee dégg-dégg di doxaan mhm. te loolu dafa nekk loo xamante ne si man jàpp naa ne xëy na euh, soxna Aram xëy na mën nañ koo def xëy si ni mu gën a rafetee pas yenn yi mhm. parce que da ngay dem ba yenn saa da ngay gis ay sëy yoo xam ne si daanaka def see jaare yàqu te loolu lépp taxawaay góor ki lay doon ndaxte loolu nag dama bëgg bu baax baax baax góor ñi daal di koy bàyyi xel soxna aram bu baax a baax ndax soxna Fadiagne Seck ak soxna aram Seck mhm. dafa am benn benn benn benn soxna boo xam ne nee na lu mu yàqula ci àddunaam àddunaam rek ndax nee na jëkkëram euh, avant mu koy bëgg dafa am benn fem bu mu doon bëgganteel léegi bi mu ko bëggee léegi euh, parent mi ne ko kii nga bëgganteel du sa nawle donte du sa waaso xam nga am na dañuy xool dañuy xool genre waase yooyu. Mhm. donc léegi nag après ci la fexe nag ba bàyyi kooku dem kooku bëggantee ki ma lay wax nii. Mhm. yàlla def ñu daal di takkante mais biñ takkantee itam dafa am euh, jigéen yoo xamante ne si maanaam yow na ngay def ba xamanteeg ñoom pour nga bàyyi leen day jafe. Mhm. xam naa ku góor ki daal moom takk na soxna moom ba indi ko mais nag mënut a bàyyi ki nga xam si moom la njëkkoon tout le temps ñoom ñaar ña ngay fréquenté soxna si moom amul saa benn saa boo xamante ne si maanaam mi ngi koy dund ci biir kër gi ginnaaw ba mu sëy see pare dafa mujj sax sëy ba ba dafa yàqu te am nañ ay njaboot te lépp nag macha allah jigéen ci boppam moo mënul ah, di jàkkaarloo ko moroomu jigéenam borom këram di ko fi bàyyi dem di ko seeti loolu nag dafa daal di jëra ah, def taxaw seetlu bu baax baax soxna aram xam naa damay daal di jox soxna aram daal di ñëw ah, ci tebam naka nga gisee soxna aram góor bi nga xamante ne si dafay bàyyi soxnaam rekk daal di dem Ah, di dem ci moroomu jigéenam maanaam ñu koy woowee infidélité di ndoxaan nga xam si góor ñi moom tubaarkàlla macha allah foo ko kupp rek ma nga fay baatare. soxna maam Diarra wax nga lu am solo tey suñu thème bi macha allah dafa riis ndax nag infidélité buñ ko waxee mooy ñàkk confiance. Mm-hmm. ndax nag bàyyi sa jabar dem di doxaan cause yi dafa bëri. Mm-hmm. li koy waral tamit bëri na. Mm-hmm. loolu xam naa buñ demee ba ci kalam dinañ ci gën a xuus. Euh, mën koo faram fàccee ci ay point waaye loolu euh, parents yi tamit am nañ ci part de responsabilité. Mm-hmm. ndax sa doom ku mu bëgg da ko ko war a may. bu ñu xëccantoo ba may ko ko euh, tamit du ñu bàyyante. Mm-hmm. ndax xale yi moom bu ñu xasee ba bëggante defe naa ne caaxaan du tax ñu bàyyante. Mm-hmm. bu fekkee ne xeex ngeen ko ba euh, sëy boobu amul dem may ko keneen moo xam bokkam. Euh, bu ko defee xale bi jigéen bi du bàyyi xale bu góor bi du bàyyi day am jabar bàyyi ko ci kër gi ba pare dem di doxaana ji te loolu neexul nag soxna maam Jaara mm-hmm. maam Faajaay ndax ku sañoon sa jëkkër da ngay nekk ak moom mm-hmm. ngeen i ngeen i ngeen i ngeen i ngeen i dund ba neex comme ni ko mm-hmm. xale yi di waxee ngeen ngeen i enjoy wante loolu su amul defe naa ne sëy ba du neex loolu tamit defe naa ne góor ñi nañ ciy am ay responsabilité yoo xam ne sii dañ ko ciy jël bu baax a baax donte sax euh, wayjur dëgg la waaye yow mi nga xam si yow yaay sëy dañ ci am part de responsabilité ndax waajur yi bu ñu la mën mënee tamit ba dugal la ci keneen koo xam ne naboo ko problème day daal di am maman Fadiagne nan nga gisee góor ñi nga xam ne si tamit euh, maanaam euh, dañuy bëgg kenn seen parents na ne leen kii du ngeen ko takk mm-hmm. ñu takk ki ñu parents ki ñu bëgg ñu takk ko indi ko si kër gi waaye terewu dañ ko fay bàyyi dem di doxaane ji waaw na Aram sax na Diarra loolu moom bu ngeen ma si laajee dinaa ci sa war a way way boobu su dul di way capitaine lu borom la. Mm. ndax ki nga njëkk a génnal. Mm-hmm. du bokk ak mukk ki nga mujjee am. kon boog tax na ba tax na ba loolu daal moom. Mm-hmm. bari na ci réew mi bari na ci jamono ji. Mm-hmm. waaye nag nit ki soo ko bëggul soo demee ba xam ne yow bëggoo ko bu ko tardeel. te léegi loolu moo bari ci góor ñi. bu njëkk dañ daan wax naan jigéen ñi duñu ñu sëy waaye léegi jigéen ñi ñoo ngi sëy. ak ñoo mëna sey mhm. légui goor ñi ci bopam ñom ñoy tak ba du sét li leen neex bacc ko fa wala ñu japp jigen ji yow tak ko pare indi ko ñi may ko ci farta sa yalla Muhammad ba paré ñi and ñom ñaar mhm. mu dem ba jabot dem ba yalla def ko fa mu am fa lu fa kenn amut mhm. yow nga dem tak dem ka nga don doxaan nga ni ko dem wat keneen mais bo takku sax ka nga don ka nga dan doxaan sax ka nga dan sax di nga dem wat keneen indi tek ci kër gi léegi na yow doxan mom liñ ci wax dafa bari tay buñ toge fi di ci wax affaire doxan duñ ko ba mukk parce que jigéen ñi dañoo son jamono giñ toll ni jigéen ñi dañoo son son son joy yoy ngay wax non ak mbekté mhm. mbekté ngay wax amatul ci ci ci ñi jëratul kenn di joy ah. ndax ku ñe góor baax rek sa baye tax waye bu fekk woon sa baye sa baye mhm. kon kenn du ne góor a baax mhm. waaye nag góor ñi ci bopam dañoo wara sétat seen bop ki leen yalla bolel nan di and ak mom nan di diisoog moom di sottanteeg moom xalaat di gisanteeg moom jigéen joo fi takk rek jonge na. jigéen joo fi mën a takk fii ci àdduna rek jonge na gisuma jigéen bu ne yàcc fii amatul. Ah, waaye na booy yàcca yow boo yàccaaru tey ki ngay ki tax ngay jonge xo dimmeeyu na la gisula la déggu la fan ngay taxaw soxna Arame wala soxna maam Jaara kon boo góor ñi seetaat leen seen bopp góor ñi na seetaat seen bopp xam na ñoom ñooy kan jigéen ñi xam na ne ñun ñooy kan xam nan ko mm-hmm. xam nañ suñu bopp bu baax li ñu war xam nañ ko ñoo ngi muñ ñoo ngi daw ñoo ngi tës tës yi dugg fii génn fii waaye góor ñi ci boppam ñoo xamatul li ñu bëgg kenn xamatu ko kenn xamatul li góor ñi bëgg te mën na noo am fii benn fayaan doguma la de ah. waaye gis nga jigéen ñi ah, cuuraay parfum see xeetu baax baax yooyu yëpp mooy seen yitte mhm. bañ na ko ba ñoom amuñu benn soxla xaas bu ñu am li ñu bëgg rek mooy dem jënd ko bégal seen seen borom kër yi mais góor ñi si boppam man dafa am góor ñoo xam ne dañoo weex bët ndeysaan soxna maam jaara mm, ay xeetu baax baax yooyu yëngalu leen <laughs> day am day am da koy def si biir mais tërëwul faaw rek ñu génn dem seeti man daal loolu moom waaye na yow nan ko jéem nan ko jéem di ko noyyi gis nga loo nooyul ba mu ne ca rax ci sa xol bi mu dara dara fukk dara du a yóbbu mm-hmm. loolee noonu yi ngeen di def yéen mm-hmm. ñoom nan ko jéem a def ci seen xol bi mu ne tarax ci seen xol bii muy nax naxi ak di ñor ñor yi waaye yow dara te loo yendaloo fanaanaloo boo jegee sànni li nga am nga sànni ko ndax ne maa ngi dem boo demee yaa nga fee bu tayee nga cuuj ko fee mel ne kalaasu maam bàcc gi kalaasu àll waat gi nga xam ne kenn yéesu leen ñoom ñoom ñoo toj dëkk bi ñoo tëyër nan moo ci raw ndax tëyër yi dañoo bari ñii ñi nattal dañoo bari ñoo xam ne dañ leen di nattal léegi natt googu ñu leen di di leen jëlal mesure boobu ci la ñuy amee kii nam seetaan seen bopp bu baax waaye seetaan a nga wax lu am solo ndax ni nga ko waxee rek noonu la maanaam góor ñi dañuy yor jigéen goo xamante ne si ne jigéen ko fees seen place la mais ki nga xam si naru koo gis gisu ko ndax bu fekkente ne li nga yor ci kër gi hmm. yow rek yaa ko mën a defar ba mu baax indi nga ko ndeysaan jógee na mais nag li mu lay wan yow gisoo ko hmm. loolu noonu day day damm ay mbaggam day tax rek ndeysaan li mu la yéene woon mhm. maanaam ci xeetu baax baax xam nga mhm. jigéen tam sëy mhm. balaa moo neex ki ngay sëyal mu safoo la faale la loo ko defal lu ndaw ndaw mu gis mu gis ko loolu noonu dalay yokk courage chaque jour da ngay ñey siiw mu wàcc ba nga dencal ko ay surprise waaye gi nga xam surprise boo ko dencal boo ñëwee gisu ko mu ngi ne siiwoo ñëw teg ba sangu ba dem dem ca kaca des te soxna Adam Seck li ma ci gën a metti kooku nee na gis nga gel bi muy doxaan day defanteek moom carrément day ah. defanteeg moom di ko war na ko sa jëkkër tak na la indi la ci kër gi waye man mi man ma fi nek mm-hmm. tam di ko menace de mort di def yépp manam di dem di tok yépp diko ko indi ci biir kër gi def ay façon yo xam ken xamul lu mu doon mm-hmm. ba fi ma lay waxane sax xëy takuko euh, dem na sax ba ñaan ñaar legi da naka ay kilifa nu mm-hmm. ku jigen ki sax legi amna jëkkeer ba sey waye tam ba legi base ba rek ma nga fa waye ndax lool daf ko yaq lu bari bari ndax ñoo ñooñu mu jël séparé woon dañoo jël séparé amnañ ay doom amna lo dafa metti goor ñi nañ xolaat bu baax baax seen jigen ben jigen ñaaw ben jigen wu Mm-hmm. jigéen boo takk nga ubbil ko sa kanam mm-hmm. ah mm-hmm. na ko fii loo fi deful ci yow la billaay fu mu eggu ci yow ci yaw la te damay wax ne sa ñàkk fayda mënul weesu nga am sa soxna te fi mu war a yegg ci yow muy muy neen mu nekk neex ci yow du a egg loolu gàtt wërsëg bu nu koo weesu ba tax na yow ngay dem di seeti keneen li mu nekk yow maanaam bu defee benn nekk waaw góor xam nga jigéen dañoo bëgg waaw góor bu defee benn quoi si séeri tamoon ni nga ma defa moom macha allah waaye day am na ngay sonn ci ñoom sonn loolu amul benn njëriñ loolu amul benn njëriñ waaw loolu benn njëriñ soxna aram naka ngay gis a jànq bi nga xamante ne moom day féttéeru xam ne kii jëkkëram daf koy doxaan mu engagé wu ne na jéeg bi man ñeme ko nag sa mhm. jëkkër daf may doxaan naka nga gisee jànq boobu tamit waa jànq boobu ah, góor gi moo ko may fit rek waaw moo ko may fit ba mu ba mu ñemee wu dee affronté jabaram te góor defe naa ne war naa mën a am fulla ak fayda donte sax takk moom kenn du ko bañ Mm-hmm. soo amee première femme kenn loolu kenn mënu koo bañ. mais parce que yàlla moo leen ko daganal. tolluwaay leen waaw waaye soo demee ba takk jabar ba dem gis keneen ba bëgg ko bëgg. lu takk ko danga koy labar waaye doo ko doxaan. Mm. xam nga nga am jabar di doxaan ñàkk personnalité la ci góor ñu baal ma na ci ñi ma ko saña a wax. Mm. <laughs> te defe naa ne góor war naa mën a respecté jabaram. Mm-hmm. jox ko cër ba nga xam ne defe naa ne kenn du ko yeb. bari na am ay jigéen ñoo xam ne bëgg na comme sax na maam Diagne ni mu ko waxee maman Fadiagne. Mm-hmm. bëgg nañoo defa ay xeetu baax baax seen jëkkër mais seen jëkkër mayu leen opportunité buñ ko mën a defee. Mm. ndax nag sëy ñaar la. Mm-hmm. góor ak jigéen ñaar ñëpp dañ naan jigéen ay joŋe waaye man bañ naa loolu góor day joŋe ba yàqu góor dafa war di joŋe ci jabaram ba nga xam ne jabaram du namm dara. ndax ni ngay joŋee mooy sa jabar lu mu def nga apprécier ko jigéen dafa bëgg koy apprécier naan ko bébé li nga def dafa rafet. tey sa sañse bi dafa rafet li nga def dafa lii loolu day tax. moom day yokku maanaam bu defoon benn soxna maam jaara da koy doublé ndax danaa sama jëkkër day apprécier lu ma def da koy gis waaye bu fekkee lu mu def doo ko gis bu sañsee doo ko ne li nga sañsee dafa rafet bu toogee bu neexee doo ko ne lii moom day tàyyeel parce que danaa man ki ma koy defal jaru ko kon sëy ñaar moo koy neexal muy góor di jigéen kon euh, li ngay daw ci mbedd bi di ko wuti xale bu jigéen ba ngay wute ji mi ngi sa kër mhm. bu fekkee rafet nga gis ci xale bu jigéen boobu boo ko defee sa jabar gis ci rafet ba mel na pep jigéen benn ñaaw koo ci defar mu rafet ba ba yàqu mhm. euh, koo ci defar tamit defe naa ne li nga bëgg ci moom di ko am soxna euh, mama Fadiagne mhm. kon soxna maam Diarra sëy daal pour mu neex góor ak jigéen ñoo koy ñoom ñoo koy séq mama Fadiagne li ma lay laaj léegi mooy Euh, góor gi nga xamne te nak lima ma si jaaxal dañuy gis jamaa dañuy am jamaa seen biir kër di wuti param waare lo way waay loolu am de rew mi loolu sa de des fois da ngay gis sa ñu naan waaw man ci jaaxal ma ci jabaram ji ni mu rafeté jabaram ji ni mu jonga ma mu top ci xalé bi soxna soxna faajaay nan nga gisé góor ñi nga xamne dañuy am jamaa seen biir kër di wuti param ca mbedd seenel seenel dafa am seenel la <laughs> da ngay ak doylu ak ñàkk bañ a doylu uh-huh. moo fi nekk te xoolal am na góor ñoo xam ne dañoo lekk yuuru gileem hmm. yuuru gileem uh-huh. boo ko xasee ba lekk góor googu nu muy mel xoolal ku mu romb dana ko dana ko cox <laughs> yuuru gileem dafa am ak kii soow uh-huh. meen mii bu ko sa yaay dee nàmpal mu jël ne la ca toq jël nii di nàmpal nii uuf ko nii mu laal mu laal ko moom mu laal ko ci kanamam wala ak fu mu ko mën a laal day weex bët moo waral ku jot fa moom ku bu gisee ma Samba moom bu gisee ma Demba yàlla bu mu dem ay jàng wala yàlla bu mu dem ca eh, programme ba. Mhm. fu mu dem ma ngay taxaw di yër di yundu. di yun yi te fekk ni woo ma nga yorlu ne beng beng ra yorlu ne nongo nongoral ca kër ga jekk macha allah. Mhm. waaye doylu dafa am ñoo góor ñoo xam ne dañoo doyluwul. am na góor ñoo xam ne seen i jabar dañoo joŋe ba xasaw. waaye man bu ma joŋee ba xasaw te nga ñëw foo mën a dem ba 4 heures du matin ba ma fëggee ma ubbi sama bunt. Mhm. togguma la foofu toog di la xaar maman Fadiagne togguma la foofu dafa am lu ma a bëgg laaj foofu maanaam foofu dafa am lu ma la fa bëgg a laaj mhm. maanaam dafa am ñoo xam si sa njëkkër bu dee doxaan mhm. donc bu ñëwee comme li nga wax nii. Ah. duñ dal. Mhm. recevoir ko. da ngay dal day ñëw attaqué ko. Mhm. loolu tamit mën na bokk ci li nga xam da koy gën a pousse tey ji li mu def tey bu ëllëgee mën na def lu ko tam bu ñëwoon tey doxaani tey ñëw 2 heures du matin. Mhm. bu ko. bu ëllëgee mën naa dem fanaan fa ba fajar wala ba ko set wecc mu doog a ñëw. am na léegi taxawaayu jéeg boobu ci kër gi nga xam jëkkëram lay doxaan taxawaayam naka la war a taxawee. ni mooy mooy li nga wax rek te man kaa boobu daal daal am na sama benn xarit bu mu daal. moom jëkkëram xaritam moo Hmm? jëkkër jabar ji mer bu xëy rek lu mu am rek da koy da koy day daal di génn rek daal ne maa ngi dem te moom xam na ne mi ngi liggéey hmm. ndax ku nekk sa jëkkër di nga xam ne mu ngi liggéey waaw mu dem ndeketewul lu mu am rek da koy biide ji hmm. lu mu am rek te ak yërmandeem moom moo ko ca yóbbu waaye du pour moom du nobel ci moom léegi nag jabar ji yëg ko bi ko jabar ji yëgee nag daal di koy kaas ñëw dal ci kaw jabar jëkkër ji yow dégg naa ni ñu ni yow da ngay dem fee dégg naa da ngay def lii dégg naa da def laa dégg naa fee loo am fa nga koy yóbbu loo kii fa nga koy yóbbu mu ni tekk di la xool di ko xool ne ko yow est-ce que loolu leer na la mu ne ko leer na ma bu ma ci amul woon lu ma leer du am moom nag mu tëdd ba guddi gént ko gént jabar ji jëkkër ji dem foofa hmm. léegi nag bi mu ko géntee dem laaj ko boroom xam-xam hmm. boroom xam-xam ba ne ko boo moytuwul sa ja sa jëkkër ji soo ko moytul kee de buy simmi ko buy simmi dina ko takk mhm. Mhm. taxawaay bee tax taxawaay mhm. ndax yow la ngay joxe la ngay laax di di di lekk li ngay laax di jaay lekk ko ci biir kër gi yàgg sa njaboot am na dëgg ndaw si am na dëgg te waaye nam ko fajee moo dul yomb moo baaxut moo gis ak dal la ba mu demee ba xam ci ba am ci preuve bu ko leer def na la muy def am la mu am tey boo ko antuwuñu ñoom ñaar. Mm. te su ñoon yox yox rek bu bu bu doon a su ma yox yoxee rek da koy fëkk yóbbu man ma dee benn ndaxte man booba fekk na man maa ngi ne ko ñu te fekkee ni booba man li ma mën yëpp maa ngi koy def. di mu mm. gis nga maam yow maam jaara na wax li fi nekk. Mm-hmm. góor ñii ñoo defe mm-hmm. góor ñii la seen fii dem <laughs> ñun suñu fii daal di dem <laughs> suñu xol bi dem góor ñi na moom seen fii daal di dem <laughs> dem gi ñu def nii mooy dañoo sumb loo xam ne mënuñu koo lekk mënuñu koo naan te dañuy jaaxle ci biir kër gi xëcc leen seen nan xëcc seen jabar yi ku ci am jabar na ko xëcc ba mu ñëw mu di ko tette ak njabootam mm-hmm. te bàyyi seen lambal lambal jéeg seen taxawaalu ji nan ko baax guddee tëdd ak guddee tëdd gi guddee tëdd gi moom ànduma ci tey ànduma ci ëllëg man moom du ko nam am màggat laa waaye du ma ko nam <laughs> màggat man bu ñëwee ba boo demee ba ñëw man la loo dem dem dem dem wiiri wiiri jaari ndaari da nga ma ñëw fekk ma ne xojj xojjoro te boo ma fëggee danaa la ubbil te boo ñëwee foo demal fa sange la la fa uppoo dinaa ko feral ba dana gën a tàng <laughs> ñetti yoon soo ko defee góor guy doxaan cafaay ko cafaay yi mag. Ah. def ko ba mu baax. Ah. bu heure ba jotee. Ah. ñetti yoon soo ko defee bu heure ba jotee dana ñibbisi. <laughs> amul kii amul kaa góor xamul dara góor na coow li coow li ko nax yaa ko moom. su la bëggee dégg foofu. maanaam boo amee sa jëkkër muy doxaan bu ñëwee maanaam. système la te système la boo koy fajee. waaw mhm. waaw maanaam boo daan def yow maanaam diis ci sa dëgëre ci wàllu joŋe. waaw yokku ko yokku ko. xam nga góor ñoo naan góor bëggul jàmm na rey na taal tubayam ci kawam. bu la xam nga ni foofa doxaan na fa ba ñëw. Mhm. fam doxaan ni fi ñu toon dañ ko fay manqué ba nga ba mu set wecc. léegi nag bu ñëwee ci yow mii la koy wàcce. Mhm. boo ñëwee ca bu ma tiimul woon kii bi wala ay a seet danaa wal wax loo na ni <laughs> nga xam ni xel ne billaahi laa góor guy doxaan <laughs> ma ne moom wallaahi la soxna yaay góor ah. doxaankat yi système ngay nekkee ak ñoom ñoom ngay nekkee doo leen may dara boo leen may dara lu ñu bax rek ngay ngeer am na jabar yoo xam ne dañuy am na góor ñoo xam ne eh, dañuy jeng ah. waaye jeng googee ñuy jeng yow yaa koy boo ne képp xam ne jeng na yaa koy dindi sa bopp dama naan tocc di la xool ba xam ne xel na yow mi am na tey loo doxale boo lëggee mm, say xóot na lool mbandum xorom la mbandum kaan la mbandum poobar la mbandum suukar la mbandum lem la ca lem nga laay dem dugg ca loqatu ca na ca ñaq ñaqaara ñëw foo ñu <laughs> foo ma daru naan ca ba mandi nag loo foo jëm nag ma topp la dar la rek na mango ba fuus uh-huh. bu yàggee ba yàgg dana yem uh-huh. góor ku ko ndax yaa ko moom góor am na góor ñoo xam ne kenn mun leen a nax waaye góor ku ko nax yaa ko moom nañu xëcc suñu jëkkër yi indi ko teg ko ci suñu kanam uh-huh. foo mën a doxaane ak foo mën a dem boo ñëwee fekk ma ratt la ba na la ratt boo ñëwee ma jekkali la jekkali rek kalaasu àll gii eh, doo leen may dara ak alpha <laughs> ndax fu ne ña ngi fay remañ da mañ fu ne ña ngi fay dem yóbbu gàddu seen kii doo nga leen di may doo leen may dara doo leen ko may soxna <laughs> aram nanu jàpp suñu jëkkër yi ku ci mën a dem ba ñëw maam jaara ku ci mën a dem ba ñëw nan ko nan ko accueillir nax ko mm. jéem koo boo nekk ci mbedd bi da ngay seet xanaa sax maanaam xam ba ca sax dafa dafa ah, dàq lépp. dafa xam ba pare ba ca dafa dàq lépp. waaw kay dafa dàq xamoo ah. mama Faye yow ah. am na ci jabar yoo xam ne xam na seen jëkkër day doxaan. Mm. waaye tërëwu la war ak ñoom yépp ñu ngi ci mat. ba mm. ñu ngi ci ba mu mat sëkk. ba mat sëkk. Mm. waaw bu ñëwee ci kër gi daal kër gi moom dana neex lool donte sax xam nañ ne ki ñu nekkal day doxaan am na ci ñoo xam ne tamit euh, maanaam gis sa góoru doxaan ka dafa bëri ay feem maanaam ay ay jinax lañ dañoo bëri. waaye nag ko ci doxaan boo ñëwee xam ko nag. waaw xam bëri ay feem bëri na ci ay seenu yoot buñu doxani gul ak buñu doxane doxaanee seenu dox du parce que du bok kat gelle ya ñi doxaan ñam tam dañuy yor seen façon euh, xuuxalaate yoo xam ne dañuy def système bo xamanteni ne si yow bu ñewé yow jaba ji nga xamné ki parfum bi fi parfum bu fi bàyyee ko ak li indi waat doolewu ko ci xati cuuraay gi mu fi jëlé won ak gi mu indaale du doon loolu tamit euh, gel yi dañuy jouer rôle bobu te góor yi duñ ci duñ yew fofu motax ñuy feñ buñ démé ci bobu motax ñuy feeñ dafa am la ci gisa sa góoru doxaankat maanaam këram jabaram day façon euh, euh, maman Faye euh, day def façon neexal yu nekk mais dañu mel ne gaynde ci biir kër gi. dañuy naqare waaye bu ñu ci biti nag. dañuy mel ne xaru laaru ngi noonu. xale yi xaru laadum yooyu ñu tàpp bam ne ñaay. Ah, noonu la ñuy ñëwee ci kër gi bu kër gi. bu ñëwee ci kër gi bu ñu génnee noonu la ñuy mel bu ñëwee ci kër gi dañuy mel ne gaynde ci dañuy mel ne gaynde. waaye bu boobaa yow waxee jàmm sax mu nekk ay ba pare nag séminaire bu dul jeex tey damaa dem séminaire. waaw tey suñu réunion bi daa guddee sax dama am jaara tey daa def ni tey daa def tey laa demoon xam nga kooku dèjà bu fekkee hmm. jabaru naan nga nekkal day xam ne yow li koy wax yëpp hmm. ay xeetu dóor la rek ay dóor la rek xam na ci li nga nekk lépp mais dalaa bàyyi ci biir kon defe naa ne nañu nañu nañu nañu joxaat cër jigéen ji nga xam ne si ñoom lañ takk indi leen seen wallaay wallaay ndax nag bi ngay dem takk ji ko bëri na seen fukki morom yoo xam ne bëgg nañ ko mu bàyyi ñëpp na yow la ah amaana yaam wala papaam am na ko bañ mu ne kii laa bëgg kon donc ki nga xam ne si yow la choisir mm. nga indi ko sa biir kër kooku war nga koo mën a jox cër mm. waaye tamit euh, defe naa ne soxna euh, maman Fadiagne sa jabar waru la sàppi Eh, tey defe naa ne sëy màgget dañuy wax naan looy gën di dem ngeen gën a bëggante nobel bi di gën a yokku amul bi di gën a yokku mm. kon donc waroo euh, waroo gis lenn ci mbedd mi ba sàgganee ki nga xam ne si yow moo nekk sa biir kër rawatina mu juróol la ay njaboot ngeen dund lu neex dund lu metti mm. kon defe naa ne góor ñi ñoom i tamit nañu nañu nañu nañu nañu euh, naxaat li nga xam ne si moom la ñu yor euh, ñu neexalaat ki nga xam ne si moom lañ takk ndax sëy dafa metti ma dafa metti lool jigéen ñi danoo sonn ndeysaan dañuy def xeetu neexal yépp waaye góor ñi daal dafa am ñoo xam ne danoo doy waar soxna alam soxna nag kaay boo xamal la soxna waam jaara uh-huh. nobel day ruus de ah na yaakaar ne nobel day ruus kan nobel day ruus de. mbëggeel nobel day ruus mbëggeel moo du ruus. nopp dafa am. waaw mbëggeel dafa am. Mm. bëgg dafa am. bëggantu dafa am waaw dëgg la de. nobel day ruus. waaye kon kon kon kon boog ñu ñu ñu ñu bëggante est-ce que est-ce que ki bëggante carrément dina jóg di doxaan. waaw lool loolu dégg naa dëgg. dina am du am. kooko day yem ci say loxo ndax day xalaat ni fi ñu toll fu mu a dem du am leneen lu ko lu ko gën lu ko lu ko bàyyi li mu bàyyi ci biir kër waaw mi ngi noonu am na benn femme boo xam ne dañ ko naan naan femme bi dafa fiir waaw yoon ci dafa fiir xam naa kii bis bu amee wujju dina dof wala kii bu amee wujju dina fi bàyyi lu ñu koy uh-huh, joolee uh-huh. yaa may dégg jëkkër daal di takk deuxième femme uh-huh. mm-hmm. donc si na pat xale bi di ñëw dégg nañu naan kii bu amee wujju dina dof dina def lii mu tey ci loolu xale bi naaw ci kawam mm-hmm. ah bi na tekk toog di ko seetaan bàyyi ko lépp nag bu ko jëkkër ji ne ah ma ne tey damaa bëggoon a ñëw français nekk damaa bëggoon a tey jël ay mu ne ko moo garaaw xale nga yor dem ca dem ca bu tàkku sam jotee bu liggéey liggéey ba mu egg dapsaan mo sangu ba sa wetti sol yërëm ni mo war a sol toog jàpp boppam yaa ngi di def non di def non gis nga goor bu fekkente euh dafa bëgg doxaan ba dem ba takki ba indi bu ñëwee sët bi da nga koy bàyyi ay fan bàyyi ko ay jamono yi sët bi wacc lo fa jaay du ko sax sët ba lay gis danga ko koy moy moy li ki wax rek moy lool moy li wax danga ko koy bàyyee nak bañ dem ba jom ñaan nak ba ngan gi rouss nak gis nga bala nga kaa laaj sa ay kooku mooy wii di ñëw jël ayam jël jël moom bu ko bu ne tey damaa war a ñëw France bu ne ko déedéet kii xale la da dee doog a ñëw ko dama bëgg nga dem ko tey tey moom fii nekk dama ko génn ki nga njëkkal si jonge la bokk mooy li ma la wax rek la doo koy du yam ak kenn moo tax bu ñu gars yi dee cëpp-cëppi ak di lay lay yow neel moom rek neel dee gën a waye te ah. xoolal nag tey bala nga xam nga suñu plateau bi tey gis nga ni alaa mi uh-huh. tey bu fi am ñaareel ne woon ñoox uh-huh. yàq plateau bi <laughs> da ko yàq suñu xarit lañu waaye dañoo réglé wu <laughs> loolu moo soxna di fajjan foofu moom dogguma la fi yàlla bu la bu la yàlla dog mm-hmm. parce que day am jigéen ñoo xamante ne si ne da tax seen borom kër di leen fi bàyyi dem di doxaani ci àll ba seen taxawaay lay doon mm-hmm. bëgg lu baax mhm. dañoo bëgg xet bu neex bëgg mhm. seen jabar di solo bu mhm. ñu wàcce fekk la nga solo ba mel ni jàmm dañ koy bëgg dañoo bëgg tamit maanaam ku leen safoo faale leen yëg leen naka nga gisee jéeg bi nga xam si dafa nekk ci kër gi na yàcc ba pare bañ jabaram doxaane jëkkëram doxaane loolu mënu ne loolu moom loolu moom soxna maam jaara soxna aram loolu mënut a nekk déedéet waaye yéen ba tey ànd na ma ak yow ci wax boobu nga wax noonu góor ñi ànd naa ci góor ñi ànd naa ci yow mm. soxna fajan am na am na waaye am na xeeti góor ji góor ñoo xamante ne si ne li ma la wax sànq moo ci ne mm-hmm. bëgg nañu xet bu neex waaw bëgg nañu sol mm-hmm. bëgg nañu ku leen yëg di waxtaan ak ñoom te léegi boo xoolee ñun toog waxtaan ak suñu borom sax attanuñu ko sax ndax whatsapp bi loolu am na borom kër ba wàccee yaa ngi ne eh doom eh, ndox <laughs> loolu am eh, ko ndox jëkkër ji day laaj loolu am sa ba ana bet ba dégg naa nga sëgg fi nga sëgg rek dégg naa dafa amu na naa dafa am ay système yi góor ñoo xamante ne si dañoo bëgg ku leen faale bëgg ku leen yëkk gis nga loolu noonu ko mangi ci kër gi. Mhm. munoo fexe ba duñ dem doxaani. waaye mooy li ma la wax rek doxaan bind la doxaan bind la ci góor gis nga ni góor saay-saayee noonu bay doxaan noonu la ñun jigéen noonu la ñu saay-saayee dafa am ci ay nit par qualité la mm. da nga gis ko mokk pooj lool teel a sangu teel a defaru teel a xeeñu teel a suuru teel a sañse yaa ngi may dégg teel a xeeñalu neex nit ki digg bu dé ay karola wala ci biir sa mu neex ya ngay ciok ciok di xaar sa borom kër ñew liggéey ba war ko gaté mu tok mm-hmm. bu naan ci kër gi duyal ndox sax du la may sax kanam bo go duyel goko duyel duyal ndox sax wae ko may waye boba yow mm-hmm. yaay forcé rek def mm-hmm. ah. lool dafa am ci nit dafa am ci goor am ci jigen waye da nga gis jigen ju jonge lool te goor ga du ko gis nga gis jigen ju jigen ju ñaka lool te góor ga topp ko. topp ca rek mm. topp ca am na ñoo xam ne xet. seen xeetu jabar sax lijjanti wuñ ko ndax mbëgg moo am solo seen salte jabar dara dérangé wu leen ci ah. mbëgg fii la nekk mais da ci am ay góor ñoo xam ne si moom loolu leen yàlla dañoo set waaw dañoo bëgg lu baax bëgg lu neex mm-hmm. loolu day am góor ñoo si bu ñuy takk jabar di wax dëgg yàlla dañoo bëgg jéeg bi fees seen place loolu la buñ ko amul ci biir kër dañuy génn wër dañuy génn nag waaye nag jéeg bu dal daal yàlla bu mu ñu dal ñun ñii ñun mm. mm-hmm. ñun ñii toog yàlla bu mu ñu dal te a dal waaye nag dama ne bu boobaa mais nag même bu ñun tamit te amaana sax muy ci ñun waaw même bu dul ñun tamit moom na ne feneen waaye bu nekk amaana ci mën naa sax mën a nekk sax ci ñun mm-hmm. ndaxte matale fépp kenn mënu ko dañaa matale ñu ñoo ngi matale boo demee suñuy borom ko ña ngay muñ loo xamante ni si muñu ñoo ko wax mun ta ñàkk <laughs> waaw kay mun ta ñàkk waaye dama la bëgg a xamal ni rek mm-hmm. maanaam maanaam jeeg dafa war a am nu muy taxawee taxawaay kay mooy li ma wax ni maam jaara mm-hmm. ah dogguma la maman Fadiagne. Mhm. Euh, bari na góor ñi doxaani ji ñàkk jàmm seen kër moo koy waral. nee na dëgg la loolu am na euh, góor ñoo jigéen ñoo xam ne dañoo bari histoire. Mhm. ba seen jëkkër wax ju neex sax mënu koo góor dafa bëgg jàmm. man duma leen may dara de xam nga liggéey la jël laa nekk ci ma leen may euh, dara loo leen waxal ba ngoon rek ñoom la gis nga boo naxtaanul yow aram bu yow mii bu la góor kii su la naqut yow nooy amee jàmm mama Fayaay naa amee jàmm. xam nga góor kay ba àddina baax su demee liggéeyi ba ñëw. Ah. bu nee salaamaaleykum na yëpp ci kër gi na kanamam leer. jabaram man koo ñemee doomee man koo ñemee. mais soxna Fatou waaye yow dara. mayoo ko jàmm mayoo ko salaam <laughs> jamono dafa naqari. des fois góor ñi dañuy génn dem wuuti ji. waaw mais des fois dëkk ba day xaw a dëgg dafay xaw a parce que dañuy jànkoonteeg lu nekk. waaw loolu am na bu ñëwee dafa war a am yoon noo leen accueillir. waaw xamante si boo leen toppee ci lu ñu indaale ci biir kër gi rek waxuma sax sens ba parce que loolu loolu accident lay doon. Mhm. ki ñu waxal daal moom ki ñu tax di wax daal mooy ki nga xam ne dafa a fees am. te feesul place am. ak ki nga dafa a toog gérer jabaram. Mhm. gis jéeg bu joxe masaala bu matale lépp ba pare bàyyi ko fa dem di wari leneen. Mhm. loolu moom so ah, soxna am solo. yaa ngi woon ci góor gi nga dafa naqari deret. bu ñëwee naka la ko jabaram waree ak yére yu mel noonu. loolu foofu foofu laa jëmoon dafa am jigéen ñoo xam ne euh, dañoo naqari deret. ba pare dañuy tasee góor goo xam ne si góor gu bëri jàmm la xam nga góor su bëree jàmm tasee jigéen ju xaw a pànk xaw doy waar dafay daal di métti ci kër gi. Mm. te xam nga góor ñi ndeysaan soxna ma euh, euh, maman Faye nga leen di sànni xeer yëpp nag nangu leen. <laughs> ah seen nangoo liggéey ah ak ak ak ak ak euh, ñeme njaboot. Mm. am na góor ñoo xam ne saan mm. dañuy dang-dangi suba ba ngoon jot. léegi rek pour bëgg rek lu ñu yóbbu kër ga. Mm-hmm. teral ci soxna si ak njaboot gi. Mm-hmm. mais bu ñëwee. Mm-hmm. kooku bu ñëwee dafa war a fekk jàmm ci këram. ndax xam nga mbedd moom lu la parfois nga am ku la loo wax loo naqarit parfois góor ñu ñëw indaale melokaan boo xam ne xamewoo koo ko ci ñoom sax mais parfois ci meddi mi lay doon mm-hmm. kon kooku bu ñëwee war nga koo am noo ko ak yéree mm-hmm. ba nga xam ne xelam dina mën a dal bu baax mm-hmm. waaye bu fekkee ne jànkote naa yooyu ñëw fekk fi jabar joo xam ne bu xaw a doy waar bu mel ne aram bu ko defee kër gi day daal di lii bu ko defee bu fekkee ne am na benn xale boo xam ne ci mbedd la xale bu xaw a am caay-caay tuuti day daal di dem ca xale ba ah, fekki jëkkoom léegi su ko defee nga ne sama jëkkër day doxaan sama jëkkër du toog dama fekk yow la tax muy dem di doxaan ji yow yaa ko def dañuy seetlu bari am jigéen ñoo xam ne ñooy tax seen jëkkër dem di doxaan ji wallaay loolu moom am na jonge dafa am jongentu am gis nga jonge dafa am jongentu am ci jonge nu muy mel cëfar cëfar am cëfar cëfar casar casar am <laughs> wajang wajang am <laughs> lan mooy jonge joŋe mooy baax xeet xeet yooyu nga fex yëpp te nangoo defee nangoo tàlli mm-hmm. nangoo tëdd nangoo joxe nangoo <laughs> yiw ah. tey jaamu yàlla mm-hmm. jéeg bi nga xam ne dafa ñëw na di wajang wajangi kooka baax ba ma xel mu dem jéeg bu ñëw ci kër di wajang wajangi muy awa ba di ñaareel ba di ñetteel ba di wajang wajangi mm. ak tépp tépp ki téel téel ba ma xel mu dem kooka gàtt ngawul mm. fekk ñëw sa ñaar ñam fa fekk walla benn ba mu fa fekk da koy fëkkaal te bu fekke ni kok kam fa fekk loolu du du habititam du du du mana nek kon bok soxna aram mhm. soxna mam jaara na delo sunu xel yi te jema jongi jonge sunu jeuker yi mhm. ñun jigéen ñi fekk na moom deug dafa neexul de waaw ndax goor mo wara am baat ci kër mhm. jigéen waru fa am baat lu baatam mooy toppatoo xale ya di to borom këram di ko topp bànneexam waye nak lu am ñaara ci ñun ñi lay doon kon bok na delo sunu xel yi te jonge jonge soo ko defee rek li nga bëgg sa jëkkër jonge mooy ñàkk jom jonge mooy ñàkk jom même bu meree sax ba ñëw ba faxar faxari ba mer sax yow tàppal bu guddi jotee naxtaanal ak moom mhm. fexe ba téye ko ba baraada ba kaas yee tegu wala meew ma mhm. attaay doo ngi naa téye ji góor ci kër boo at booyalee ba mu teg sa gaz wala nga booyee sa fourne bi toog teg say kaas xale yi sa sa sa seen waa kër lal nee ñee lal nee nga toog jël def nii mu jël sa kii bi teg wéeru la def nii mm. bu yàggee ba yàgg bu nee nii bu yàggee ba yàgg day sa def nii <laughs> bu yàggee ba yàgg day daal di day daal di daal di bàyyi su bàyyi ko nag am nga ko su bàyyi ko am nga ko. bakkan ni léeg nga wax ko yéy ci noppam bi ne ko nangam ak nangam bu ay feneen sax nga ne ko. ñu ngi ko nga dëggal tay dëggal tay dëggal. léeg nga doxantu léeg nga am fo laal léeg nga am fo ciap ciap bu yagge di fi doxal nan kon bok nan jéem a xëcc def sayida su na yeen ni nga xam ne man mom mag la mm. waye yeen ni nga xam yeen yéen ci toll jógee len ba xasaw bu len may sen jëkkër dara dara dara dara bu ngeen leen ko may de len xeeñoo xet gu neex de len waxtaan ak sen jëkkër di ko leen jege tay nango gis nga jigéen ju ciy defeenu jigéen du defeen hmm, day bàyyi jigéen day jigéen du tëddee ndefendaay jigéen yu tëddee ndefendaay xamal ne dee nga ku ko góor gu ko yàlla jox rek dee nga jigéen danaan ngalañ day bàyyee ko tey kafakaree <laughs> te joŋe tey xeeñ lu neex nangu koo jege te ñàkk jom waaw waaw man Fadiagne Seck loolu laa xam kat te loolu laay digal jéegit jéeg bu may digal loolu laa lay digal macha allah waaw loolu laa leen di digal de. am na am na am na maanaam góorgóor leen bu baax <laughs> am na solo yal na yàlla def jàmm yal na leen yàlla jàppale bu baax a baax a baax a baax yal na taxawaay bi yàgg ñi gën a góorgóorlu bu baax gën a defar suñu jëkkër yi. te xam ne amuñu lu dul suñu borom kër yi. ñu ngi mel ne suñu suñu technicien moo ngi ñuy signalé. na waxtu bi mi ngi waaxu xam naa dañu daal di jox soxna Aram rek tubaarkalla mu ñu dernier kàddoom si émission bi. Mm-hmm. laataa ñuy tàggatoo soxna maam Diarra kontaan naa bu baax a baax euh, maman Fadiane yow tamit ñu ngi kontaan bu baax ci ànd yow bi ñu àndoon a yow. Mm-hmm. émission li ci kër gi tey nag ñu ñëwoon rek ci góor ñi nga xam ne ñoom suñu ay xarit lan waaye nag doxaankat yi ko baax te teewaat soxna yi ci biir kër yi loolu dafay daal di am solo bu baax a baax. di euh, kontaane ñëpp rek ñi nga xam ne si dañuy topp ci suñu sit bi ñuy wax Gueoul Art TV ak émission bi ñi nga xam ne si moom mooy euh, li ci kër yi di jaajëfal bu baax a baax rek maman Kiné Fall moom day commentaire bu baax a baax waaye tamit euh, El Hadj moom tamit saa su nekk rek moom itamit dañuy dañuy bàyyi xel waaye tamit di ñu béggee bu baax a baax ñu ngi koy remercier waaye tamit Thiat Kébémer Thiat Kébémer moom itamit dafay euh, euh, commentaire lu bëree bëri ñoom tamit dañ leen di remercier bu baax a baax ndax ñoom dañuy partager waaye tamit Anta mi ngi mbajaar ak Khady Seck ñoom tamit dañuy partager waaye tamit di aimer loolu da ciy daal di am solo bu baax a baax di remercier bu baax a baax soxna Fama Sall Seck kooku mooy série Cheikh monsieur le maire moom tamit saa su nekk day ñuy remercier waaye tamit saa su nekk tamit daf ñuy encourager ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñëpp rek ñi nga xam ne àndoon nañoo ñun ci émission bu mag bii ñu koy wax rek li ci kër gi amoon nañu contentement bu baax a baax su ko defee rek soxna maam Diarra loolu moom mooy euh, tàggoo bi. Masala allah sanaara mu wax lu am solo ci dernier kàddoom ci fin émission bi mu wax lu am solo nañu toppatawaat bu baax baax suñu borom kër yi damay wax ni amna ci ño xamé ci goñox ci ñi ngi genn mais tax ñi genné ko seen ciobaré tax fekkee da nga wacc ño war fa fekk jam te do fekk lool tamit wax dëgg yalla moy waral góor yu bari dañuy genn waaye dañ daal di jox maman Fadia ñoom tamit daal di dernier kàddoom waaw soxna mam jaara soxna aram maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ndax yéen tamit xale yi set loxo ngeen macha allah mm-hmm. ndax xale bu loxoom setee dina mën a ànd ak mag dina mën a ak gone. Mm. kon bok ma leen di ñaanal bu baaxa baaxa baax di ñaanal sunu àll mi tamit ñu koy ñaanal bu baax ak ah, àll kee. lamp lamp kee. Alpha Sow ma koy ñaanal moom bu baaxa baaxa baax mm-hmm. ndax lii démb la woon tey di soog a ñëw. Mm. kon boog tey bi ngeen ñëwee ba yéen te yéen gudd ngeen lool ba mënuma leen a tëb. gàtt ngeen lool ba mënuma leen a tër ndax da ngeen a nekk samay nit ngeen xëccaat ma bu ma ñëw nii di leen magal nii mhm. kon boog maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen ñaanal mhm. ki ne Fall moom nga tudd moom it maa ngi koy sant bu baax ndaxte moom it ku baax la ci man mhm. ku baax la ci man ndax sama mbokk la sama lépp la lu ne la may defal moom it ku koy xaar yàlla na xaar di El bi nga wax itamit sama sang la ma di ko naa ñaanal jëng sàll ma jigéen ku leen di xaar yàlla na xaar mhm. di ñaanal ñëpp di ñaanal waa Ngumba gépp di ñaanal soxna Kébé mi nga xam ni tamit moom it macha allah. Mhm. di ñaanal yaayam bu baax. Mhm. di ko di ko di kontaan ci li mu def. ndax lii ku la ko defal li mu li mu defal nii lu jafe la ci Ngumba. lu jafe la kon boog ñu koy ñaanal yàlla na kër gi ràpp ak jàmm yàlla defal ko taw féex di ko ñaanal borom këram gi ñëw ci jàmm ak salaam di ñaanal àlla yow tamit maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax mhm. barke Seydina Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam maman Faye tàggoo woon naa sax waaye nday Anta moom ñu mën def dañ koy remercier ndax lii yépp moom la ah. moom moo ciy jàpp nii ba lépp baax nii macha allah Eh, waaye tamit di ci nuyuwaale rek borom këram tonton Souleymane Seck moom yi foofu Espagne waaye mm. tamit eh, di ci nuyuwaale tamit eh, borom kër gi macha nekk sama frère ak mm. jabaram mm. Ndeye Assou ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu ngi foofu ci Espagne soxna maam Ndiaye. Euh, merci beaucoup soxna Aram merci beaucoup soxna Fadial Seck ci kàddu yu rafet yi am na solo ci émission lu ci kër gi nga xam si moom lañ doon tey jii macha kenn nekk moom xam nga ko macha allah ci li mu fi wax yëpp dafa am solo lool. ci noonu laay profité rek macha allah di sant di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne si nit ñi bàyyi xel xarit yi ak soppe yi ak am di jàmm yi fépp fu amee nekk dañuy seetaan waaye itam rek ñu ma leen koy xewoon sànq rek euh, tubaarkalla macha allah euh, suñu euh, poroxaan poroxaan céréale incha allah poroxaan céréale local fan yii ñëw dina leen indi ay produits yu am solo mi ngi ci marché bi sax demee nekk sankal ak araw ak ay ni cere couscous lépp loo xamante ni si rek euh, maanaam xeetu lu ci dugub rek. boo bëggee rek incha allah taala mën nga ñu contacter ci numéro yi 77 693 73 95 incha allah taala fépp foo mën a nekk rek dinañ la mën a indil produit yooyu mi ngi noonu yow mi nga xam ne da am xarit boo xam ne dafa nekk Espagne wala Italie ñi nga xam ne suñu mbokk yi dañoo nekk ci àll bi nga bëgg leen yóbbante sërice wala lu ya mën a doon rek macha allah pare nañu poroxaan sarayal pare nañu pour lépp lu waay commande rek incha allah ci numéro yi ngay aw di sant nag di gërëm nag mbokki internet yépp macha allah di ziar bu baax rek di sant bu baax rek suñu grand technicien Alawad ñoo ngi koy jaajëfal bu baax baax la directeur euh, tamit Alpha saw ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax soxna Aram Seck jërëjëf waaye tam jërëjëf mama Fadiane ko ñu jox la rendez-vous ci beneen alal ci yeneen émission la ci kër gi incha allah jërë ngeen jëf